salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jàmm ci Sen Sport 220 ans Seny Dieng gardien international sénégalais bi nekk foofu la ci Queen Park Rangers ñoo ngi koy annoncé ci France club bii de Stade Reims la ñuy wax ne ñoo ko bëgg signé Stade Reims ak mooy club ki nga xam ne mooy euh, John Lopy ak ki nga xam ne mooy Yehvan Diouf Yehvan Diouf sax mooy seen gardien bi nga xam ne ku xarañ la koo xamante ni sax am na club yoo xam ne ñoo ngi koy bàyyi xel jamono bi Krépin Diatta moom lañu bëgg a signé voilà na mu ñëw nekk koo xamante ni da koy foofu foofule wala boog mu ñëw dal di koy wut ndax Yehfane Diouf kat saison bu rëy bi nga xam ne def na ko xañ na mën na ko ubbil bunt mu dem ci yeneen i club su boobaa Krépin Diatta ñëw jël place rek loolu tam mën na ne ñu fàttali leen Stade Reims googu noonu ki nga xam ne mooy Edouard Mendy foofu la jógee dal di dem Stade Rennes jógee fa dem Chelsea voilà te ki nga xamante ni mooy Yehfane Diouf bi la moo ci yoon bi Seny Dieng na xam ngeen ne ren ji saison bi neexul ci moom ndax Kunta Ak Rangers kat monté wuñu te sori nañu lool fa ñu waroon monté saison bu méttee métti la ñu am ren jile waaye ànd ak loolu yëpp moom Seny Dieng wane na ci xarañteefam donte ne équipe bi taxawul woon na mu waree waaye am nay clean sheet yoo xam ne jot na ko dajale kon loolu mooy li nga xam ne kayit xibaar ñu ngi koy biral mooy Seny Dieng mën na dem foofu la ci stade de Reims ki nga xamante ne mooy Alfi Haaland mooy bàyyi ki nga xam ne mooy Erling Haaland tey ji dañu ko dal di jagat jagatee génnee ko foofu xamante ne fa la nekkoon mooy ci li ko waral nag mooy dégg nga dafa jalgati ay chart ndax li ko waral ne nañu gannaaw bi nga xam ne match bi doon dox diggante Manchester City ak Real Madrid wala Real ak Manchester City mu ngi doon xew moom nag dafa am ay yëf yoo xam ne moo ko doon jël rawatina ay lekk ak yi ci aju di ko sànni ci kaw supporters yi nga xamante ne ñoo ngi woon ci suuf voilà maanaam di ko sànni ci seen kaw. loolu yëpp kayit xibaar ñu ngi biral ne mu ngi xew ci jogante googu léegi loolu nag ñii ne nañu maanaam xëy na yooxu yi nga xam ne fans Real Madrid doon nañu ko yooxu ñi ne ay saaga voilà moom it mu dal di xataraayu foofu la ca kaw loolu yemu ca mu dal di jéng maam jël ay lekk yoo xam ne ñu ngi fa woon dal di koy sànni ci kaw ñi di supporters yi léegi nag bi loolu amee ci la sécurité bi dal di ñëw jéng maam dal di koy jagat-jagate génne ko foofule moom kii di Alfi Haaland Sergio Busquets moom naka jamono bi kay di xibaar dañoo biral ne dina jóge foofu ca Barcelone loolu mooy li nga xam ne ñoom wax nañu ko voilà li ñuy xaar rek mooy kii di Sergio Busquets daal di dégg def li nga xamante ne mooy ab communiqué maanaam def daal ab tàggatoo maanaam ndax jàpp nañu ne kat prolongation xëy na bi ñu doon wax noonu kon fii lay mujjee jaaree tabbi géej Sergio Busquets kon day génn foofu la di Barcelone am na club yu ko doon topp foofu la ca MLS bi waaye li ñu gën a njort mooy mu dem foofu la ca Arabie Saoudite bi nga xam ne gis nañu ne fi mu ne kat star yi wala bokk ñi nga xamante ne ay joueurs yu mag la ñuy xarañ la woon ci Europe ñu ngi fay wuutali dégg ngeen rek démb ñuy wax ne Al Hilal bi nga xam ne dañoo am déggoo seen diggante ak Messi ñu ngi ko bëgg moom kii di Sergio Busquets ki nga xamante ni nag mooy Eduardo Camavinga moom mooy ki gën a nekk xale def passe décisif ci nga xam ne mooy demi-finalu Ligue loolu moo xew tey jii moom xam nga ñaar fukki at la am gone gu ndaw la te moo jox Vinicius bii bi nga xam ne daal dina koy dugal ne nañu mooy ki gën a nekk xale ci vingt képp mu def passe décisif ci li nga xam ne mooy événement bu ni toll muy demi finalu Ligue des Champions ci match bobu nga xamne mo ngi doon dox digënté City ak Real Madrid ki nga xamne moy Carlo Ancelotti ñaxtu na bu baax baax bi jogante gi jeexee liko waral moy ballon bobu nga xamanteni kat ñee di Manchester City duggal nañu ko té liko waral moy ballon bi dafa génn dafa génn voilà ki nga xamanteni moy Bernardo Silva dal di koy duggalat ci bi terrain bi té bal bobu ci lañ ñi di Manchester City défé li nga xamanteni moy sen égalisation manam ci la ñu dugal dal di dab ñi di wa Real Madrid lool nak mom la Ancelotti doon xataraayu di ñaxtu fofu lé ci lako arbitre ñoy jox ko carton jaune waye nak ñi nga xam ñoy beIN Sport rapport bi nga xamante ñoom dañ doon teg jogante gi bi ñu defee li nga xamante ne mooy wanewaat vidéo yi ci la ñu gis carrément ne ballon bi dafa génn terrain bi génn terrain bi kii di Silva dugalaat ko ci biir lan moo tax arbitre bi xool mbir yi voilà xoolaat bii bi bu baax a baax ni ngi ni ñu ko toggee ba nga xam ne amul benn erreur bu ciy xew waaye moom dafa bàyyi rek mu jàll loolu nag jur na coow lu bëree bëri waaye nag loolu amul dara lu mën a changer fi mu ne ci résultat bi match xam ngeen ne résultat bi moom dèjà tombé na jàll na mu ne li nga xamante ne moo xew kay mooy arbitre bi ni mu arbitré baax na ndax am na coow yu bëree bëri ci xew waaye nag ndax moom ay sanction dina topp ci kawam wala boo ñii di UEFA dañuy bàyyi mbir yi mu jàll loo ci mën a dégg daal ci côté Madrid moom am na ñaxtu yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi koy dégg maaf jël di ko teg ci kaw arbitre bi bi ci gën a fes mooy bit boobu nga xam ne daal dañu koy dugal te kii di coach bi bi nga xamee ne mu ngi proteste ñu daal di ko ciy joxe sax carton jaune voilà moom kii di Carlo Ancelotti Atlético de Madrid dañoo bëgg a signé ki nga xam ne mooy Pierre-Emerick Aubameyang ak ki nga xam ne mooy Cucurella ñaari joueur Chelsea football club lañu waaye nag jamono bi kay xibaar yi ñu ngi biral ne ñii di Chelsea football club amaa nañu dugal leen ko te dugal voilà xam nga dugalante loolu ñu koy séentu ndax kat bu ngeen di bàyyi xel ci di euh, João Félix moom joueur Atlético de Madrid la te mu ngi foofu la ca Chelsea te ngir ñu jot ci moom ndax xaalis bu baree baree leen di xaar il faut ñu teg koppar yu takku ngir soog ko mën a jëlee foofu la ci Atlético de Madrid moo tax Chelsea comme Atlético bëgg na seen seen ñu bëgg a xañ na li kay di xibaar bi di Evening Standard eh, biral mooy amaana Chelsea dinañ leen dugal kii di Kokorea ak ki nga xam ne nag mooy Pierre-Emerick Aubameyang su ko defee mu yombal li nga xamante ne mooy ñëw ki nga xam ne mooy João Félix Arsenal dafa war a joué ci li nga xam ne mooy weekend bi seen diggante ak Brighton fi mu ne nii nag xam naa ñoom bu ñu tëddee duñu nelaw xam nga rek yi gis ngeen ne Brighton moom gannaaw bi mu dooree Manchester United jamono yi ñi nga xamante ni dégg maam ñoo di Everton dañ leen dóor ci dégg maam mooy barki démb wala démb léegi nag ci loolu ki nga xam ne mooy seen coach bi nga xamante ne mooy désert bi nga xam ne ñu ngi war a jouer contre Arsenal bi nga xam ne dafay xëccoo ngir war a mën a gagner championnat bi waaye seen coach bi nee ndax kat Brighton moom équipe bu mag neexalu ko voilà moom ni muy dóoree équipe yu mag yi noonu lay def ak équipe yu ndaw yi kon loolu mooy li nga xam ne moo xew voilà kon gars yi loolu fekk na fes ci tënk comme xibaar continué leen di suivre Sen Sport the best sport news channel